Yewwi Askan Wi moom ki nga xam nekk moo di euh, Cheikh Tidiane euh, mu def aussi ay révélation Djemele, euh, si ki n'a xam que Modi Ousmane Sonko ay révélation yi n'a xam itam di dégg dans quelques instants Inch'Allah, par rapport à son état de santé ma ni kon nag ki nga xam nekk moo Cheikh Tidiane Dièye mën na jox booba di information tey jii jaayaloo ko conférence de presse bi nga xam ni les alliés d'Ousmane Sonko doon nañ ko daal amal fa itam ko frappe waaye mu daal di ni ni ab cœur lourd manam ak xol bu jeex la daal duggee ci salle bi nga xam tam Ousmane Sonko fa daal di nekkoon ni jamono ji nak mi ngi daal dund ay jafe-jafe si li nga xam nekk moo di wérgu yaramam ba sax mu daal di japp ni Ousmane Sonko dafa daal di perdre euh, euh, connaissance maanaam àndut ak li nga xam nekk moo di loolu la ki nga xam que moo Cheikh Tidiane Dieye daal di yëkki fa nga xam tam itam euh, sa conférence de presse bi nga xam tam doon nañ ko daal di amal ni ki tay di dikkat exactement ci état de santé bu Ousmane Sonko waaye mu daal ni ce dernier au nom des leaders euh, présents à la conférence de presse euh, d'y tenir uniquement responsable le président Macky Sall c'est-à-dire ña nga xam ni itam ñoo daa teewoon si wàllu conférence de presse jàpp ne li yëpp nag euh, président Macky Sall rek la des na dal di faram fati par rapport ak état de santé bu Ousmane Sonko bi nga xam ni Cheikh Tidiane Dièye dal di xamal ni jamono ji dafa dal di li nga xamné que modi di tagte dem sax ba dal di am leen li nga xamné que mo benn ko malaise ni Ousmane Sonko dafa dal di perdre li nga xamné que modi alors Denda daal di ñëw exactement itam si mais kele dox li mu daal def ay révélation je me ki qui n'a nekk que di Ousmane Sonko mu daal di jàpp ni fu toll le leader de Pastef nag li mu bëgg mooy daal di delluwaat kaso ba maanaam euh, daal di delluwaat exigence boobu Ousmane Sonko daal ni daal que koy fana euh, fa nga xam ni it euh, alors mbokk spectateurs yi dalati na jàmm nag si soir su cinq na ñun ak yéen la station dinaa si ànd ki n'a xam que moo Mamo mais vous pouvez le retrouver euh, demain Inch'Allah. alors donc Dinké Dadi Doré, sans doute aussi dañ aussi par rapport.

di eh, Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Dièye nak lu ko yàggatul dara si euh mi ngi daal di eh, renoncer li nga xamné que moo sa candidature prêt pour and Ousmane Sonko si tout atoupa 2024 moom itam ki nga xamné que moo Cheikh Tidiane di kan exactement si état de santé bu Ousmane Sonko nak japp na ni nak jamono ji metti na lool sax à ce que pour mu daal di joxe bobu de li nga xamné que moo information tey ji la ko daal di xamle

li wara war wax lépp leader yi wax nañ ko ba ba noppi waaye dafa fekk itam li bëgg wax ko ba pare duma ma ci mën a tegati benn kat moo tax du mën a gudd bi may dugg fii ci salle bi maa ngi fi dugg ak xol bu ak xol bu metti bu ak ndax annoncé nañ ñu ni Ousmane Sonko dafa def malaise dafa def malaise bu metti ba perdre connaissance mooy nit ñu ko waxee dafa def malaise ba perdre connaissance ba jamono jii may wax ak yéen médecin yi ñoo ngi ko nekk ak moom ngir di ko dimbali ngir xettali ko wolof dafay wax sax ngir y a yalla mais toll ko ci jamono toll ak ci conférence de presse nous ñu yëkëti ngir wax ci liñ ci wax ñuy wax xew ngeen lu fu gravité ak dangerosité fa Ki ñuy wax muy Ousmane Sonko leader de l'opposition sénégalaise may bëgg a wax président Macky Sall ci tour leader yi fi toog yépp ci turu patriote sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak diaspora bi mais ci turu sénégalais yépp ak démocrate yi ni président Macky Sall Ousmane Sonko intégrité physique am intégrité mentale yaramam ak léppam mu ngi ci sa loxo yow yaay seul et unique responsable te ñu ngi lay wax bëgg nga dégg ni lépp lu ko dal. yàlla tere ñu ngi ñaan sénégalais yëpp ànd ak ñun ngir ñaanal Ousmane Sonko taw féex mu mën a jógaat waaye lii ñu wax ñu ni def nañ malaise lépp lu ci tukkee président Macky Sall ñoo ngi la koy wax ni moo di tey wala ëllëg fii ci biir réew mi wala ci bitim réew danañ la topp dina nekk haute trahison très haute trahison parce que boo waatee ci constitution sénégalaise ni di nga sàmm Sénégal tay yaa ngi tas Sénégal parce que li nga def opposition ak leader de l'opposition bu ci daraam desee wala mu am lu ko ci jot sénégalais yépp nga lor loolu nak mom la bëgg sénégalais yëg ko ñu xam Ousmane Sonko bayyi won na grève de la faim comme ni ñu ko waxé bi nga xamé ni kilifa yi ñaan nañ ko ko li tax mu duggaat ci yeen ñepp xam ngeen ko ànd ak ay nit surtout jigen ñi def grève de la faim ba sonu

vous me permettrez simplement de livrer cette information je suis rentré dans cette salle le cœur lourd je suis rentré angoissé je suis rentré peiné parce que juste avant mon arrivée ici les médecins les avocats et ceux qui lui sont proches nous ont annoncé que Ousmane Sonko a fait un malaise très grave et a perdu connaissance et qu'au moment où nous vous parlons, les médecins sont avec lui en train de le réanimer et de l'aider. Cela est d'une gravité inouïe. Et cela vous montre combien il était important de tenir cette conférence de presse. Nous l'avions fait pour euh, parler aux Sénégalais, livrer des informations sur la partie judiciaire. Mais à peine avons-nous fini cette conférence de presse que cette information nous est parvenue, avec toute la charge et la gravité de cette information. Je voudrais simplement, je ne peux être long après avoir entendu une telle information, mais j'aimerais seulement, au nom de tous ces leaders ici présents, au nom des Sénégalaises et des Sénégalais d'ici et de la diaspora, interpeller le, le président Macky Sall et lui dire que nous le tenons pour être le seul et unique responsable de l'intégrité physique et mentale du président Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise. Nous le tiendrons unique responsable et nous le poursuivrons si, à Dieu ne plaise, il arrivait quelque chose à Ousmane Sonko. Que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou je ne sais quand, mais il rendra des comptes si par ses ces manigances ces manipulations, cette violence et cette persécution, il en arrivait à atteindre l'intégrité d'Ousmane Sonko. C'est cela que je voulais dire au peuple sénégalais et vous dire de, rester mobilisé et déterminé pour sauver ce qui reste de ce pays, de sa démocratie et de son état de droit. Je vous remercie. Euh, bàyyi leen naa booy ñëw wala ci ak rek ko ko ci dere ko wure ay badi do mo mu nekkoon ki na xam ne que moo di Cheikh Tidiane Dieye mu daal di jàpp ni xol bu jeex la daal duggee fa nga xam ni itam mooy zanu hôpital principal bu Ndakaaru nga ma ni kon nag mu daal di jàpp ni Ousmane Sonko fu mu toll nii dafa daal di li nga xam ne que moo di wopp lool ba daal si yegg dem li nga xam ne que moo di ko daal déggandoo mu doon ay révélation xam ni itam doy na waax bi nga xam ni itam Cheikh Tidiane Dieye tey defal nañu ko à travers conférence de presse bi nga xam ni itam doon nañ ko daal di tenir ma ni kon nag ñëpp ña fa daal di toog ñëpp nag ñi ngi daal di ku jëm si président Macky Sall su mu ne daal di deltu ginnaaw euh, par rapport ak wàll wur mel mu daal di koy def ndaxte fu mu toll nii nag situation bi euh, doy na wax lool jëmale si ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko donc nag ñoom ñëpp ñi daal di wooteendoo benn woote ni daal di li nga xam ne que moo di ñaax président Macky Sall ak ñi na xam ni itam ñoom la daal di àndal à ce que daal di deltu ginnaaw si kaw ki na xam ne que moo di Ousmane Sonko balaa gàcce di daal di fekki donc loolu ki na xam ne que moo di Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Dièye daal di yëkkati mu daal di nekk li nga xam ne moo di tamit en voisin Ousmane Sonko fa nga xam ne itam mooy zaanu Casamance waaye.